ñoom nanu marché góorgóorlu bu baax a baax te tege ci aw yoon waxtaan bu baax a baax lépp loo xam ne sa bakkan gis na ci lu dul yàlla seetagoo saa ba ci jihaadu nafsi yi nga xam ne lu Sëriñ Tuuba gëne ñëpp jihaad bi nga xam ne def na ko ci diine lislaam nanu xam ne jihaad joojee ñu fekke woon sallallahu alayhi wa ak moom jihaad joojee ca ñoom la mujj te la tàmbalee day mel ni ci ñoom it la yem xeexi lislaam noo koy dégg saa waaye xeex yooyu xeexi arab la du xeexi lislaam الإسلام دين الأرض أو غير الله كون في مليون وار نون نيب نو غور غور بو باخا باخ لا خساي بو باخا باخ دند لا قلي تبات لا اله الا الله محمد رسول الله لتين نو غي بغي دار لتين نو غي خيمم دار نون تيجي يور مو سيرين بي lu ne dañ na ko Sëriñ Tuubaa lu ne dañ na ko loo defee ni dañu ko ko koo xam ne ba nga xamee sa ndeyjoor sa càmmoñ bind kaamil tuuti nga toog noonu lislaam dal ci sa kaw fu ne ñu lu ne ñu def la ko lu ne ñu teg la ko lu ne ñu ayibal la ko ci palanteer ba toogut sax dafa taxaw. mais seenu leen ma waay seenu leen ma waay seenu leen ma waay bind naa ngeen gis wax naa ngeen wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis yow mal xëyam du ngeen ma fa yey de waaw bind naa bopp yow mal xëyam du ngeen ma fa du ngeen du ngeen ma fa yey de te loolu fu ne jaar na ko lu ne defees na ko kër la gën a dëgër kër la gën a nekk ci ndigali suñu borom te ragalul lenn lu dul yàlla gis na nit mu wéetal yàlla boo xam ne wéetal boo xam ne nun ñii defuñu ko ndax léegi-léegi mu ëppal yàlla sax da ngay gis murit boo xam ne bii day defe ne waru ko tudd ndax day sukkandiku Cheikh Ibra ci loolu Cheikh Ibra du ko ñuy sukkandiku ndax fa mu jaar boromam jaar ko Serigne Touba ba wuuteeg noonu ku jeerul foofee doona dongam Cheikh Ibra te bañ a doon moromum Cheikh Ibra foofii nu wax xalaa nu war a waaye wóoru na ci bànneex rek roy kii su wërte roy ki ñuy roy tiñawaraway mooy ki nga xam ne dafa nekk ci ndigalal son borom sànni di xeex ak bakkanam di xeex ak adduna di xeex ak seytaane di xeex ak xawa nafsi muy baneexu bakkan loolu yent yooyu faw nga jihaat ba mucc ci ñoom nga door nga door nga door a gis tasawur islam njariñam di way sama sëriñ te jaamuwoo yàlla du la jariñ dara kàddu gi seebu bu subaa ñu teg ko ci kaw pee di way sama sëriñ la gën a mooy yàlla mooy saa buur lëm ma digal def naa maa ngi koy def lam mu tere maa ngi koy ba maa ngi ñaan mu musal na ci seytaane maa ngi ñaan mu tàggatal ma saa bëkkan maa ngi ndax yàlla foofu ñoom ñaan ko bu nu defee ne nag mën ngaa wéeru foo xam ne saa borom doonul ci yow dara saa borom moom nag boo doxee tuuti xam ne doon na ci yow dara sëriñ bi li muy tedd tedd muy sëriñ bu man di doon ba lislaam soso lu mu tedd tedd tedd ba ci sallallahu alayhi wa sallam mi gën da ngay sukk ci armeel ba ku ko def kooku kooku li ko sunu borom jox te fi mu ne dara leen mënta xam ci moom lu sukk fa ba ku def loolu yàlla yàlla nii ku naqaree faww nu faww nu jaam ko faww nu wéetal ko faww nu may ko yowam ana sëriñ bi te jumaa jële nañ dugg bu njëkkan ku fa dugg danga daa nga jooy léegi kenn du jooy léegi kenn du jooy ndax xol yi nekk nañ leneen da ca nekk lu dul la daa jooy loo nit ñi ci suba kanay Serigne Touba ba mu ne jàkk li réew mi nekkee woon nuru lii may wax mu la xasaayu moom ci boppam sànni ñëpp fa sa borom bëgg mu jaabam Rasul lay daal di ko cay teg ndax ne bëreet samadi sans borom moo ma digal loolu waxaade ni muhammadun li samadi sallallahu alayhi wa sallam in wamat ma delloo ma sans borom ndax waxaade ni muhammadun li samadi ba ko sëriñ bi waxee ndax mi ngi umpanteeg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam am sëñ bi dafa ànd ak boromam mi nga xam ne xamee sut mu tàmbalee xamee sut mu yem ne mee bàyyi rasulullah loolu it mënoon ko jàpp kon dañuy jàpp ne yàlla yonent bi sëñ Tuubaa yàlla yonente bi sëñ Tuubaa boo ko xoolee day mel ni lenn la waaye it du lenn yàlla moom lu nit tedd tedd tedd tedd lu mbindeef tedd tedd tedd saa borom ko bind sallallahu alayhi wa moo gën ca loolee kon sëriñ bi ni mu ko gisee loolu ko war a jàppe noonu sëriñ bi li ñu ko war a jàppe mooy li ñu yónni woon sallallahu alayhi wa sallam moo nu jaman boo yemee foofu doo bokkaaleeg yàlla doo woyofal sallallahu alayhi wa sallam te li nga bëgg yi danga ko am am na loo xam ne lii ñun ñëpp noo koy def loola mo di danga am dara ne sëñ bi ma ko jox waaye loo ñàkk doon ne sëñ bi ma ko xam sant sëñ bi boo nekkee ci diis jaaxle te faw lépp dañ ko war a teg suñ borom ndax mooy lii gën a neex euh, suñ borom gën a neexee Sëriñ Tuba la Tuba kéem tolluwaay lu nu wéetal yàlla mu bég kéem tolluwaay lu nu bokkaaleeg yàlla mu bég ko mona arnaɗo foti lis cheikh sadoɓi limi tedde tedde nene halafa samanu la yatiyanna bi mislihi hani sadi yaminuka ya samanuka kafir jamana day giñ na ne dana fi indiwaat ku mel ni sëñ tuba waaye sa ngiñ loolu yàqu na defal ko ku mel ni sëñ tuba duuti ñam waaye sëñ tuba ba mu gisee tagg woowu geesuwu شيخ سيدي تبوك تبي يباري بوكنا جا الشيخ أحمد نعمة الأولى حاشق على كلها مولاها سرين تبامي كت من اللواقة من اللي سنبر موكو جوه بني بيب سرين تبوك جا فارلو جيمو فارلو صغل ود لأن لبي يالا يتمونه وما عيبه إلا عبادة ربه ونقل ورافيس فيه ومصائه Sëriñ Tuubaa mii kat amut ayib ah am na ayib mooy lu dul yàlla amut a soxla bu amee ayib mooy loolu bi ñëw war nañ teet yi ndax Cheikh Sidiya Baba da ko yarda isa jaratil umuru musalima ilman bi anna ilahahu ajraha jëmma ngi nii yoo xam ne lu sun borom dogal neex na ko mu doon ne gees ne madaxani tagg na ma tey taggee ca des yëpp amu ci woon soxla te nee lu def neex na ko ndax di kenn dana dindi lu la neex kon nan koy wattandiku kàddu yooyu ya, te moo ko waxal boppam koo xam ne lu yàlla def neex na doo ko dindi mu dogal ci yow leneen te nga loola yi di sa àndandoo te moom yàlla moom li mu dogal moom kon nag loolu yi bu ñu yoree xel di ko settantal danañu wattandiku lu bëree bëri te suubu ci nga xam ne ci lañu war a suubu suubu gi nag jafe na lool ndax jihaad bi nafsi la mënoo am ci yàlla dara te sa kan bi setu kenn mënu ko am sunu borom ba mu bindee doomu aadama ñëpp ñoo bokk bind tàq gaag ñëpp ko bokkule yonente ya awliyaaw ya saalix saalixoon ak yëpp ñoo maase lam leen bind taqaay ba ak yëpp ku mucc ku ne yaa jihaad ak sa bakkan bala yàq demu yoonam lay defar des ak yow waaye loolu sëriñ ba gën a rëy ndax mën na ko defub taalibeem te du ci tasawuful islam ba gën a rëy teg taalibe bi na muy bëree bakkanam moo ko war waaye bëree moom ku ne yaa koy defal sa moom kenn du la ko defal ndax lu méttee métti la ndax boo toogee fee dóoroo sa bopp ñu ñëw mel ni du la dóor tàmbali na tàmbali nga xeexal la la la bëgg a teg ci

gisuñu ko fenn ni mu woyefale woon jëmmam ji tedd ji mu woyefal ko ba nga xam ku ko gis xeeb ko ndax kenn mel na ni loolu wala moom jafe na lool te mboolem ku ko jiitu woon ci ku baax boofu na te sa gàtt la ma gën loolu lépp Sëñ Tuubaa jaar ma kon nag noonu mooy am na lu mooy roy di ko roy ci lu bari la nga xam ne nag may boroomam moo nekk ci moom nag bu ca xel dem ndax kenn kenn doonu ca loola dara boo ko bëggoon it doo ko mën tey mu mel ni sëñ Tuubaa moom boo ko waxee mooy tey ko rek ndax lenn moom loo xam ne lii yanu na ko loo xam ne xaj xaj na ci kenn giseesu giseesu ji it ci Sëriñ Tuubaa la nu gën a xamee Rasulullah ci la nu gën a xamee yi diine lislaam ci la nu gën a xamee yi sunu borom ndax gis na lu nekk nga xew ci ji jamono waaye noo ngi xool Tuubaa waaye gisuñu murit boo xam ne la ca ba ci sa bëgg sëñ Tuubaa ak ak doyloo sëñ Tuubaa gisuñu ci ak wàññiku te mbooloom yi nga xam ne calaa mooy mbooloom aaxiru sama topp lenn jafe nañ leen ba mu def sëñ Tuubaa ak loo man di mel ak loo man di mel rek sëñ Tuubaa nii buñ ko tuddee nga am loo yëg ci sa xol wax nga am loo yëg ci sa xol keneen ku ne mënee ko tudd te doo ci yëg dara waaye boo nee sëñ Tuubaa kooku ci tudd déglu ba xam looy wax kon nag bu baax a baax xam jëmu joor yi nga xam ne moo fi ñëwoon delluwaat ci borom ndax du yàlla du yonente waaye yonent bu ko tëggalee sëriñ bi mboolem ñi yónni woon ak ñëpp sallallahu alayhi wa sallam nekk ca kaw waaye lañ ko yónni woon sëñ Tuba sëñ Tuba jaman loolu yamal diggante mu ba mu ne ku liyati moo jësa donta axar la maay kéemaan sa sa sallallahu alayhi wa sallam bi mujj ñëw yamal te te te te kéemaan te bañ koo lijjanti ndax boo ko lijjantee man nga jaay yàqu bu ko مدرسة دقة مقصود برمي بمن بان لكل من له ولاية كوني لخالق البرايا آية képp ku am wilaaya xam nga ne kéemaanu suñu borom bu ko lijjanti ndax man nga ko lijjanti yaar dikkal la ci ne mooy yàlla ndax dana la ji yaar dikkal la ci nga jéem ko weddi ndax mën na laa ji kon am na foo xam ne fii ku fa dugg da ngay yàqal waaye jariñu fa dana jafe mooy si mooy son borom moom lu sëñ sëñ bu jéem a xam lu mu doon la gën a kawe neel yàlla gërëm na ko yonent bi gërëm na ko ku baax ku ne gërëm na loolu boo fi waxee tax taxaw nga taxawaay boo xam ne doo ca loolu te wax nga dëgg leneen loo defee na nag boo ko waxee mu yokk sëñ Tuubaa dana wàññi sëñ Tuubaa te gaañ la yow waaw aw wax yow gaañ la kon nag ñëpp nanu góorgóorlu bu baax a baax te te te te te ab yaw ak i teggin ci ci bi mhm. loolu buñ ko defee ñun ñëpp danañ tege ci aw yoon mhm. bu ñu ñëwee it ci ànd ak Serigne Touba dañuy wóor ne fi mu jaar fi mu jaar yàlla jaar fa Rasulullah jaar fa ku baax ku war na noo rafet njort ne danañ mucc loolu moom nanu rafet njort ne dana mu ndax lu muy sàkku ci saa borom saa borom gànt loolu xamee su ko bu ko sàkku ci Rasulullah mu di ko gànt yi xamee su ko ëllëg jóge saa borom ñi ko yaakaaroon saa borom eh, ñi ko yaakaaroon te ñu nekk ci bakkan sa saa borom ne leen jàkk ñu di leen yóbbu ci safara yi jëpp ma ko loolu yi jëpp ma ko bàyyi cant sant yàlla foofu liggéey lay àndal sallallahu alayhi wa sallam daal daa fanaanee julli ba ko soxna si laa mii ci guddi ba daj ko ne ko gannaaw amatoo ko looy soxna soo mu ne ko dama dama bëgg di jaam kuy sant sun kon nag yoo xam ne kuy sant yàlla ko ne doo doo doo doo sabaru kuy sant yàlla da ngay dem jàppi tàmbalee julli tàmbalee jooy jant gàngoo julli ga ak jooy ga du ko jariñ dara waaye dana xam ne soxal sedd na guyu ba ngay jooy loola lu muy dolli la waaye du muy wàññi ñun ñëpp nanu góorgóorlu waat ubbi waat dënn yi xol yi dugal ci sëñ Tuubaa li fekk loola manees na ko ku man loola ku ne yaa ngi ci li ci des it sëñ ko xeexal du ko ñuy xamle it du ko ñuy xeexal boo doon dox ba dégg ku teg ci deram ba noona bàyyee ko yàlla yàlla mi nga xam ne moom dana ko fayul sa yoon nekku ci ree bàyyi ki bàyyi ki nga xam ne mooy son borom dana fayul sëñ Tuba ca loola ndax sëñ Tuba kenn mosu koo def ko def dara ba mu naqari ko musta teg kenn lenn it seytaane ci boppam képp sax da koo bàyyi mu jàpp na ne lu am rek sans borom a ko def lu am rek sans borom a ko def ndax moom tey jii boo seenoon ab nga daw làquti ci bi baram dangaa ñaawal sa sa kii waaye dangaa daw làquti ci nëbbu yi waaye bu ëllëgee xaj bi jàppaat la xaj bi du fa jóge mukk te boo nee tëll moo dàqaat la jàpp la màtt la kon ba mu lay dàq rek jërul ngay daw wuti wuti lu yet yet bi nag doo pàpp yet ndax saytaane so ndax iblis mooy xaj bi yet bi koy dàq it mooy laa ilaaha illallah te ñeme ko it léegi mu doo wàcc la ko dam sa yoon kon nun ñëpp gën a dundalaat xol bu baax a te wàññi it tàggee bu metti bi ku nekk yaa ngi tagg sa bopp dëgg la naa eh, eh, rafet na ci dégg-dégg mën naa amit noona la demee waaye nu nekk ci Sëriñ Tuba ah nu war a dellu gannaaw joxaat Sëriñ Tuba ak cëram lim nu sant it moo di nan jaamu yàlla te bañ koo bokkaale nu jàpp ne dafa am xëjal seen ci lim fi indi déedéet ak njëg la njëg ku ko yor mu jaay la ku ko yor du la jaay ñëw na ba dellu kenn koo jëm ci dara moo moo yor seenum nos adduna ak àllaaxira foo seeni jàngkati xasaayid yi loo ca teg fële nga jëm teral leen wala nga daw soo yoon waaw loolu moo moo war ci ñoom ndegam ba ngaa mucc foo dégg foo dégg yi coow la ca ñoom léegi dootoo fa dégg kuy soow maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp tey ñaan seen takoo gi ngeen takkoo fii muy jëm kanam saa su ne ndax njariñaa ngi ci saa su ne ndax ku ne xam ne ne lii man mii ni ma daanu kate nga xam ne lu ne mën naa koo wax génn mu ci sans kër tëdd te booba tey maa ngi wax wax joo xamee ne jii yéen a ngi toog di ko déglu maa ngi leen di sant itam nga bu ngeen gàdduwoon ne kii lu muy wax maa tooñ sa bopp maa ngi sant ñëpp nag wa rahmatullahi taala wa Modou it ma ma maa ngi leen di xamal mboolem gan ko fi nekk it ñoom ñii day tege nañ ci aw yoon sëñ Modou Ba mi ak sëñ Basiru ak ñi seen gannaaw tege nañ ci yoon lool mboolem ndigal yi bàyyi ko Tuuba ñoo cee man saa su ne laxasaay bi ngeen waxee ni sëñ Tuuba yi fii gisuma kenn mu ko ca mel ni ñoo xam doxin tarixa yi ma leen di wax bu kenn dal ci benn tarixa yi jaxasoo bu ñu jaxasoo ñoom it gisuma ñenn ñu ko ko def ba tax na it maa ngi leen di sant yéen ñii enu reel aja ajjana ba bari ko ñaanlinde waaye jàpp ma ne benn muri dana dem safar